salaamaaleykum Sénégal salaamaaleykum yéen sa safoo di seetaan Kër Ndanane TV fépp fu ngeen mën mënti nekk dal leen jàmm ci la chaine de l'élégance Kër Ndanane TV comme ni ñu ko faral di waxee rek mooy chaîne bi nga xamante ni nit di ñoo ko ñoox tey nag dañuy wàccaat si diine ji comme ni ñu ko faral di defee ñëw fi nga xamante ni moo di Canada en face tribunal bu Pikine comme ni nga ko gisee nii gis nañ euh, gàmmo gi nga xamante ne mooy gàmmo annuel bi nga xamante ne waa Mourideen Cheikh Abdoulahi Ba ñu ngi koy amal fii ci Pikine gàmmu bi nag di gàmmu ñetti fan démb moo nekkoon premier jour bi di cérémonie d'ouverture bi tey nekk waxtaan mu am solo suba nag di gàmmu gi di guddi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam donc sama gars dañ leen di bàyyi rek ñu ànd ak suñu caméraman yu xarañ yi car macha allah dugg ci biir événement bi euh, du ma fàtte nag ñi nga xamante ne ñoo di suñu ay sponsor euh, ku ci mel ni euh, vinaigre Mame Diarra nekk sa Sadikh établissement Colobane Guy Mouride nga xamante ni mooy ndox bu set sell te wóor bi euh, Mamadou Yete Saay jiite li nga xamante ni moo di mouvement moo di euh, entreprise bu am solo boobu baax lool jàppale nag ci côté bu nekk franchement ak ñi nga xamante ni ñoo di waa Blue Énergie boisson énergétique bu am solo Kara Jorof agricole bi nga xamante ni euh, monsieur Ndoye mi ngi liggéey lu am solo ci euh, ci wàllum bay fii ci Sénégal ak taw euh, Tawfekh Multimédia monsieur Diack mi nga xamante ni kenn demul bàyyi ko donc ñii ñooy suñu ay sponsor bu ñu ñemee rek c'est parce que ñoom ñoo ñu gunge comme ni ma leen ko faral di waxee rek Kër Ndanane TV la chaîne de l'élégance Kër Ndanane TV tey dina neex dina xumb dina dagan lool sax surtout dagan gi parce que dina la ñu wax donc ñu ngi ci biir nit ñëpp Kër Ndanane TV encore une fois de léegi nag bu sëy boobu amee en encadrement yi nga xamante ni ñoom ñoo demoon doon ñaani di def protocole léegi bu sëy bi amee difficulté ci biir ñooñ duñ ci jot duñ ci jot ñoom ci seen biir rek ñoom ñoo koy lijjanti seen bopp te duñu xam nuñ koy lijjantee puisque gis nga bi yàlla di euh, expliquer néegu sëy dafa wax ni yaa aadama askun anta wa sawjuka fi janna hmm? askun anta wa sawjuka fi janna wa kula min a raxadan ay susixtuma waaye wala taqraba shajara fa takuna min azalimina loolu la sëy moom maanaam loolu mooy droit sëy xam nga dañuy wax ni dañ koy séddale ñett ku góor gi am day am droit am ku góor gi day am ay droit am gis nga bu ko jàngul sax da koy lijjanti ba xam ko da ko koy jaral puisque moo ko moom ku jigéen ki tamit kasaalik waaye li tax ngeen di mën a dugg ci biir néeg fatu génnaat kenn du leen toppatoo kooku war nga koo gëstu te mooy mbooloo mi nga xamante ni ñoo def protocole dem ca ilimaan woo ko mu nekk seede ñu am ay seede génnee can gi ñu ñu maye loolu nga xamante ni moo tax ngeen am sañ-sañu loolu mooy sëy bi loolu da ngeen ko war respecté loolu nag mooy néegu sëy xam nga moom lu mu soxla mooy sutura bu ñu ko joxee sutura boobu lépp luy xew mën naa xewee ci biir néeg bi ma sàmba du yëg ma demba du yëg waaye su dul loolu jigéen yi bu fekkee ni a ah, attanul loolu day dem ci ki mu gën a yaakaar mën na nekk yaayam mën na nekk bàjjanam mën na nekk xaritam xam nga ko sa kër di lakk da ngay yuuxu wu woote wallu loolu li muy li muy li muy euh, wundu mooy danga bëgg ñu fayal la lakk gi mais déedéet elie ñu indi ndox essence lañuy indi ne ko ci pëy ci lakk gi mu gën a jëppatiku xam nga loolu mooy lan mooy bu doon man jaaxle nga ba ñëw wóolu nit ci conseil ci sa wàllu sëy ndax jaaxle nga te loolu amul kenn ku ko àttan ci biir néegu sëy problème yooyu nga xamante ne dafa dox ci seen diggante amul ku góor ki amul ku jigéen ki ñoo ci bokk yam waaye bu ngeen ko bàyyee ci néeg bi rek léegi mu jeex mais da ngay dem boo ko waxee ñu ne la man de bu doon man sa kii nangam nangam dalaa bëgg a yab defalu la nii yow nag influence boobu dugg la seytaane ñëw participer moo taxoon ba yàlla waxee ni Aadama askun anta wa sawjuka donc fil janna ba seytaane déggee loolu rek dana ne dinaa leen fa génne moo leen ñetteel loolu lañuy bañ ci néegu sëy yàlla ki mu tànn ci bu problème amee mooy ko koo xamante ni un homme sage nga xamante ni wax lu rafet rek yàlla barkeel ay kàddoom ah léegi am ngeen problème ah xale bu jigéen bi nga xamante ni day door a sëy yar ay wewam xamul sax lu tax mu koy yar xamul sax lu tax mu koy yar loolu day provoqué gis ngeen suñu duubul lii yii moo baaxul baaxul puisque bu ngeen amee problème te yàlla defe ne filma ja daa jeex na ngeen sàngu régler problème bi ci biir mbàjj mi yow nga jël mbàjj ma sànni dem ca catu lal ba kee la bëggal bu bëggee kolaa sax du la dab dana tàllal tànkam ba mu jeex te du la dab du sotti ah di nga bëri mu bay bëgga dee ba pare da nga miir ci diggante bi sax te doo ko jot ah ka doon yar weram pour na la ko cuut nga naan ko waa lii lan la du la jot affaire bi gën a exagéré waaw ah. da ngeen di yeewu rek kenn ku nekk xunn puisque li nga bëggoon amuloo ko <laughs> ah su ko defee loolu nga xamante ni euh, kilifteef daf cee génn te moom moom lañu fonde euh, takk gi waaye itam bàyyi xel yàlla ci ni nga xamante ni noonu la xememe sëy yonent bi alayhi salaatu wax ci hadis mu wax ni yéen jeunesse bi bu ngeen demee ba toll ci war a takk waaye rikk waaye na ngeen takk puisque loolu mooy tax ngeen mën a saj seen xef ba du ngeen am ñàkk discipline ci jigéen ñi mu yóbbale ak doyadi goo xamante ni làmmiñ dina ko wax bu pare tànk dina ko dox te bu influence seytaane amee rek musiba am te loolu mala moo ko moom waaw xar mi ñu la doon wax léegi ne moom buy sëy kenn du ko yëg waaw te doo gis mukk ñu am problème ci seen gét di leen lijjantil seen wàllu sëy te ñoom ay xar lañu donc kon yàlla mi tànn nit digal ko mu sëy ba pare jox ko ay réglementaire yoo xamante ni fa la war tegu lu mu xat-xat lu mu metti metti lu mu jafe-jafe looloo loolooy enrangement am bu ko fa bàyyee seeti leneen ci musiba rek lay dëgg kon fase euh, du nu mu la neex nga koy defee puisque yàlla dafa wax ni abradu ilallahi atalaax li yàlla daganal ba pare gën koo bañ mooy takk ba pare fase moo tax la mu ca teg ci wàllu fase moo gën a jafe fuuf booy takk puisque boo boo boo euh, booy fase rek fokk ñu tegal la ci ay conditions yoo xamante ni dañuy bëgg nga dem ba découragé ci phase bi delluwaat parce que arrangé wul kenn comme yow loolu dafa bokk ci sa dundu te mënuloo ko mataleel sa bopp waaw boo ko boo ko bàyyee fii est-ce que di nga amaat feneen lu gën foofu wala doo am loo xamante ni moo yées la nga doon bañ moo tax yàlla ne jombul yéen a ngi bañ dara asa an takrahu shay'an wa yaj'ala llahu fii xayran kasira léeg-léeg nga bañ dara ci wàllu sey nena na ndekete yàllaa ngi ci jif yiw woo xamante ni dootu yam ci yow kuy sa famille mën na ci ànd moom it kuy famim mën na ci jotale mu nekkoon kon lii yàlla def ci biir néegu sëy moom rek moo ko mën a gérer su ngeen ko déggalee nag mu nekk loo xamante ni yërmbale leen doon ci yéen ak mbëggeel mu continuer ba faw léeg-léeg nga dégg ku nekk ak soxnaam niroo la ko way juróom wu jigéen day am ba pare continuer di sëy ak moom loolu daganul ba pare sax rafetul te gis nga loolu yàlla décret bi nga xamante ni moom la ci euh, wax mi ngi ko jëlee ci benn soxna suñuy wax xawlat xawla dafa amoon benn boroom këram bi mu nekkee xale ñoom ñaar ñuy sëy ba xaw xawla biiram tuuru maanaam dem ba mënatula jur nee na benn bis boroom kër gi soxla ko mais jigéen day am moment boo xamante ni du soxla ku dul boppam donte sax amul ngant booba mu fekk mu am ngànt mu laaj ko boppam mu jox ko ngant bi mu fénati ko wax ko baat bu ñaaw boobu xawla la di daw ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam <coughs> daal koy <coughs> wax li xew yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci maandoom mu ne ah, loolu de teqalikoo la waaw fase bu dog la am na saaga yoo xamante ni boo ko saagaa sa soxna sax sëy ba dog na te ñu ngi koy foye ci biir néegu sëy léegi xaw la bi mu koy wax yonent bi alayhi salaatu wasalaam yaa Aïcha mi ngi toog yonent bi mu ngi jël boppam teg ko ci tànku yaa Aïcha mu koy peñe mu koy répété loolu yenent bi alayhi salaatu wasalaam di ko répété loolu rek naan ko ah loolu de loolu laa ci xam léegi nag xaw la dem na ba gis ni lii yonent bi mënul ci dara loolu xam nga mag ñi dañ koy conseiller jigéen ñi buñ leen di muur wala buñ leen joxee seen can mu ne can googu boo ko jëlee jënd ci mbubu spécial mu nekk loo xamante ni danga koy def muy sa ñaanukaay sangu ba set jàpp julli sa ñaari rak jubloog sa borom subhanahu wa moo xam problème la boo xamante ni sa jëkkër la walla say doom ci sa néegu sëy wala yow ci sa bopp ci sa wàllu sëy nga ñaan ci yàlla nangul la ko <clears throat> loolu ndax respecté ni dañ ko léegi léegi xaw la daal di retourné tàllal ñaari loxoom yàlla subhanahu wa ne ko man de maa ngi nii sama borom kër bii ma wax lii yëg naa ci moom ni réccu na ko te xam naa ne ni ma ko bëggee noonu la ma bëggee te man amatuma ndey amatuma baay mooy sama ndey mooy sama baay jural naa ko ba sama biir tuuru na mënuma sëy feneen puisque beneen góor bëgguma donc bu ma ko bàyyee xale yi du leen mën a gérer dinañu tumuranke te bu ma jëlee xale yi duma leen attan pour ma leen a dundal yàlla daa ji wàccee ay euh, saar bu ñuy wax xat sami allahu <laughs> xat sami allahu xawla lati tujaadiluka fi sawjiha wa tastaki ila llahi nee na problème ko kenn foofu liñ ciy jànge mooy boo tolloo ci situation bu mel noonu jublul yàlla fala la ñaaw ñaan gën a gaaw a nangoo nee na dëgg dëgg dëgg yàlla ci boppam dégg na maanaam kii nga xamante ni mooy xaw la doléance bi mu ko exposé daal di door a def décret bi nag daa nekk kii nga xamante ne nag moo wax wax jooju wax na wax ju ñaaw ju waral bàkkaar léegi nag pour mu retiré wu mooy day woor ñaari weer yu toftaloo te du ci dog benn walla mu goreel jaam wala mu lexel juróom benn fukki miskin te no te moom euh, miskin la <laughs> léegi nag yonent bi alayhi salaatu salaam bu alquran daan masa wàcc ci moom dangay gis ni nga xamante ni euh, diisaayu alquran ni mu koy def day ñaq tooy xëpp wala muy lox mel na ku siburu bi muy def noonu nag ndaw si mu ngi continuer di wax rek Aïcha yaa Aïcha daane ko wàññil sa kàddu xanaa gisoo ni mu mel ndax nii bu ko masaan di def rek alquran mooy wàcc ci moom bi mu paree yonent bi ndeysaan ah, tudd yàlla tudd yàlla ah daa di wax aaya bi wax ko nag ne ko demal woo sa borom kër ma wax ko li ko yàlla wax jigéen yooyu dafa bokkoon ci ñi nga xamante ni révolutionnaire la ñu woon te loolu yëpp daawuñu dépassé ak teggin lañ ko daan defe ci nga xamante ne mooy àqu jigéen dundoon na ci yonent bi alayhi salaatu abu Aboubacar ba ci Omar benn bis xaw la nekk màggat di di traversé rek fekk amirul muumin muy Omar di war a traversé xaw la daal di taxaw ci digg euh, digg euh, yoon wi xam nga ay dag ak buur <laughs> ni ñuy mel dañuy réagir gars yi commencé riposter rek mu ne leen eh yéen xanaa xamu leen ndaw si kii yéen ko respecté wul mais man respecté naa ko ndax moom moo taxaw ba ci gundara kam yàlla wàcce aaya bu bees tax pour moom di ko del te man Omar yàlla mësula wàcce ci man moom mii de bu taxawoon fii ba suba bu ba suba laa wax fii lay taxaw ak moom ndax respect boobu ndax yi ko yàlla respect mu ne ndax ku yàlla respect ndax Omar waru ko respect ñu ne ah kay mu ne kon respecté leen ndaw si loolu euh, pouvoiru jigéen la waaw te loolu mi ko amee ci gérer wàllu sëyam ba du yàqu ba tas du am parce que dénk nañ ko lu rëy moom jigéen waaw ndax yàlla ku mu wóolu matériel bu mel ne nit ah mu defal ko jigéen xam na ni jigéen tey na dal na mais góor ak ëppalam ak fëxër xëxëram bu doon bu doon ëmb la <laughs> ilaha illallah di nga gis avortement yoo xamante ni da ngay tiit sax te ba cay baax <laughs> prématuré lay doon yàlla xam na li muy def de waaw léegi nag euh, loolu lañ defoon entre parenthèse ci li nga xamante ni moo doon guddi gi tey nag defe naa alxuraan lañuy ñuy waxtaanee Basir su ko defee loolu tamit euh, ci kàttanu yàlla ñu jéem cee préparé rek ay ay xulaasa euh, dem cee waxtaan léegi nag waxtaan bi dafa am euh, question ak participer mu nekk débat boo xamante ni euh, bu ñu paree rek ñu mën ci am luñ ci jële loo xamante ni dinañ ko jariñoo ndax dañu toll ci jamono sëy ci boppam moom la ñu respecté tul te yàlla daf ko respecté te ñun la war a gën a concerné euh, adduna bi yëpp foofu dem ci attekat yi ak xaadi yi la fa gën a ëpp ci ay problème mooy problème mu sëy lu tax mu war a mën a ame noonu te ñaar ñi nga xamante ni way dencante kenn kiy jógoon jël xaalisam tànn laataan muy tànn mu laaj mu ne bëgg naa lu waral dox seen diggante ba loolu di am question kon fa tabarakallahu basir mbir maa ngi noonu waaw accord rek sëy mën na mën na mën nañ ko accordé bon benn première question deuxième question bi mooy man damay assister comme ni mu wax ci sëy mais xutba yi kenn du ko wax olof sama classe bi seen àll ba soriwul pourquoi bu imam yi duñu ko expliquer am wolof même même les vendredis xutba la l'actualité pour positionner les musulmans selon mais pourquoi duñ ko wax olof mu leer pour nit ñu mën ko comprendre ñaari question la ci takk sëy waaw ndax ci portable mën nañ ci takk sëy waaw kon euh, loolu mooy ci portable mën nañ ci takk sëy ah waaw bu fekkee ne ñaar ñi nga xam ne ñooy kii waaw sëy da moom xanaa moom quel que soit alpha moom ñi ñu war a sëy moom bu nu jubóowul moom du sotti mais kon boobu mooy question bu njëkk bi waaw bi ci des euh, li mu wax tamit euh, lu jar a bàyyi xel la mooy lan moo tax Sénégal fii amuñu tendance su euh, ay xutba yi nga xam ne ni ñu ngi koy def ci sëy wala xutba yi ñu ngi koy def ci jumaa yi par àjjuma amuñu tendance su di ko wax nit ñi en olof pour nit ñi mën ko comprendre ndax actualité la waaw loolu moom xam naa Oustaz da ci def barkeelu rek ndax question la boo xam ne nii yaakaar naa dëgg-dëgg euh, ñi nga war a tontu sax daanaka euh, tontuwuñ ko ndax ñi nga xam ne ñoo ñoo ñoo ñoo yor jumaa yeeg euh, yor jàkka yi te waroon def loolu ñoom ñoo ko waroon def te duñ ko def macha allah oustaz moom ñu ngi koy seedal ñun ne noonu lay def ci mariage bépp bu mu fiy célébré da koy def xutba bi ci olof ba ñëpp xam lan la xutba bi wund kon loolu am na solo kon bu fekkee tamit ci gàttal oustaz mën naa tënk xutba ci li mu ko waxee woon sànq rek mu fàttaliwaat ko pour mu nekkaat leeral asalaamaaleykum wa laa ilma lana ila ma alamtana wa ma utitum min al ila xalila euh, dafa mel nag question bi dafa répondre boppam wala ci biir waxtaan wi répondre na ci question bi benn rek lañ ci euh, kiiwul muy portable portable actuellement kenn daf ko mënula assurer te euh, ñaari way dencante yi dafa war a am seede bokk na ci can bi dafa war a teew bàyyi ki nga xamante ni walla kilifa ki ñuy maye dafa war a joxe akooram teew xutba bi nag euh, dafay nekk li yàlla wax ci sëy ñaar ñi nga xamante ni ñooy dencante kenn ku ci nekk li sa waru gar li nga ci war a def ak li nga moom ci biir sëy bi beneen bi ci des sëy bi ci boppam lan la moom ci yéen ñaar mais léeg-léeg da gis ni ñaari way dencante yi seeni droit rek la ñuy wax mais pas ñu wax li nga xamante ni moo tax ñu am droit yooyu muy sëy bi te sëy bi wax nañ ko sànq mooy lépp na nekk ci biir néeg bi bu mu génn sax ci ëtt bi su ko defee rek ñoom ñaar ci seen bopp dinañ ko mën a arranger mais bu génnee rek influence am waaw muy li ma la doon wax ni kii dafa ñëw këram di lakk mu yuuxu wallu ñiy jëw di ko euh, wallu si indiwaale pétrole walla essence xam nga musiba lay doon loolooy tax nag ñuy bañ ngay yuuxu ci sa biir néegu sëy ba ci ami wallu dangay ngay wax ak ki nga war a waxal bu dee jigéen day wax ak baayam bu dee góor mu wax ak yaayam waaw wallaahu ahlam waaw su manqué tamit euh, waaw baax na incha allah yal na yàlla gërëm